mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan jërëjëf mbokk yi ñuy suivre ci Kewel Info ñu ngi leen tey nag ñu ngi Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar capital di raay boo nee sa xel dem ci ndaanaan yu mag yi boo nee sa xel dem ci Modou Anta Sall boo sa xel dem ci ambulance waaye tey rakk mbër mi laa seet si laay goote ñu gëjoon koo gis bi mu fi mujj fii la woon mook daabu Texas ñu bëgg waxtaan moom ci làmb ji fas waxtaan moom ci carrière am ndax làmb ji sàjji na te gisagun laay goote goote goote yàqul dëru bay la waykat bu wax goote goote maa lay siyaare doomu bi di la bëggee waaw salaamaaleykum Khadim Anta Seck ñu ngi lay fay ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonante bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ ab Sakkoor mu sëñ Cheikh Fall Ngunda di ñaanal sëñ Muntaxa mii suñu xalifa général mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. amin la ñuy wax. di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall mii xalifa général bu mu yàgg fi lool di ñaanal waa Tivaouane waa Ndiassane waa Layeen waaw ñëpp daal waa Kaolack waa ñaseen ñëpp maa ngi leen di ñaanal kilifa diine yëpp ñu yàgg suñ kanam koy di ñaan senegal jàmm. gën laa gën gis gars yi namm la ci loo nekk ginnaaw bi nga bëri ak daaba léegi. waaw man maa ngi nii maa ngi sant yàlla rek di julli ci yonent bi ah sant samay ñaari waajur. kese waaw. làmb ji foo toll avance si dégg naa yaa ngi teggi ku la jox nga ne doo bëreeg moom loolu foo ko teg. non yow loolu question boobu xayma na seeg dama la koy delloo man maay teggi wala gars yi ñooy teggi. démb rek wax nañ ci man ak yow ci benn combat rek nga bañ combat boobu. a <laughs> ah, démb démb waxuñ ci benn combat man ak yow. yow xam nga ñi ma war a bëreel. a ah, ñoo war a ki ma la wax waru leen a bëre. non ki ma wax waruñu bëre loolu moo tax. kooku di rakk mbër ngay rakk mbër mu nekk ndaanaan am benn defet si làmb yow nga am ñaara defet pourquoi yaa kooku du làmb. mais ñaata combat laa bëre ak moom ñaata combat la bëre. ah moom moom ay combat am li nga ko ëppalee bariwul de. da ngay lim da ngay wax leer ñu dem de. yow de neuf combats nga waxuma dix <laughs> ñaari combats nga def li nga wax dara nga ci xamul nga am nga def. def naa onze combats. waa dix ak onze benn la rek laay de onze combats laa def. waa deux défaites benn match nul huit victoire. Ndiaye Tine Ndiaye na Ndiaye Tine ñaata combats la am. Ndiaye mi ngi sept combats ay ay huit. benn défaite la am. bul sori ci débat boobu waay. xam nga ñi ma war a bëreel ñi ma bëgg xam nga ko ñi Sénégal bëgg ma bëreeg ñoom yow xam nga ko dara umbu ci. yaa ma yow yaa ma gën a xam ñi nga war a bëreel. ñi ma war a bëreel yow xam nga ko. yow yow mi jàll ci leneen. caatu yof da nga ma wax te xam nga kooku moom xarul la moom jëlu caatu yof moom mooy xare xare ba dara bi fi mujj bépp jullit la fi daan jël bu rëy. noo caatu yoof sax man waxatuma ko. lu tax. ndax gars yi koo ciy laaj day jàpp ni moom moo la supérieur quoi wala moom moo la gën a seer caatu yof su ma ko gënul seer gënu ma seer. amateurs yi ñoo bëgg suñ komba dañoo nekk ñaari njool ñun ñaar ñëpp mën a bëre amateurs yi gis ni loolu buñ ko tëggee Balla Gaye ak Modou Lo mën naa dekkiwaat. ñu bëgg ko loolu kese la. ñaari njool ngeen de. mais sàkkuwuma sax pour bëre ak moom amateur yi ñoo ko bëgg rek. ah moom de moom nee na du jël te gis naa ñaari promoteur yu ko soxla woon nag xaw ma nag ci ku mu tage nag. ci moom la tage du ñaar sax bari nañ. Fallou bëgg bëggoon na ko. numéro un Khadim Samb bëggoon na ko. ah Khadim bëggoon na ko. Sidi Diakhaté bëgg na ko. ak kan. même Père Ngagne Diagne woote na fa. waaw ah, kon nag kon mais yéen ñaar moom làmb la bu la bëgg bu la nangoo jël moom yéen ñaar làmb la xaw ma nag lu tax mu bañ laa jël nag waa xaj na nag moom moo xam li tax mu bañ maa jël nee na ma deux combats nga am Dakar loolu moo tax loolu moo xaw a waaye luy ay Dakar ak ay Thiès ak ay Tamba non fa nga confirmer waat Dakar pour gars yi la jël bëre bëre la rek bëre foo ko bëree bëre la ñun fii ñuy bëree buñ bëree tey monde entier ñëpp a koy seetaan en lay doon TFM wala mu doon 2STV en la rek waxi bëgg a daw lay wax yi bëgg non kooku du daw du daw gaynde la. te bu teelu te jël combat bi nii. damay ragal ci kanam tuuti mooy loolu. dama ko fi bàyyi dox sama dox de. yow mi billaay wallaay. ndax heure bu ma bëree mooy loolu noonu damay wane lu leer. moom day wane lu leer. benn yoon la fi daan franc daan. qualité bëree xeetu bëree yi bokkul de. yaa ko dàq bëri yow. fuuf. yow mi yaa dàq bëri caatu yow. billaay wallaay loolu pinc mi nga toog moo sedd rek garab gi sedd garab gi si Madina Fall gi sedd moo tax ngay wax loolu. dinaa ñëwaat ci loolu euh, Modou Anta ak Diène pour pourquoi ngeen ngeen tardé 19h ngeen ñëw làmb ji fu ngeen nekkoon lu leen dal. waaw xam nga xaalim làmb moom dafa xaw a bari ay benke ñenke yu sew yoo xamante ne nii yow mi sës ci mbër mi rek yow yaa koy xam quoi. yow yow nag yaa sës ci mbër mi nag lu tax ngeen tardé lan la. Sénégal yëpp jaaxle nañ ci tardé gi man pour man sax du ngeen ñëw làmb ji. làmb ji li tax ñu tardé dañoo dem ba dernier moment xam nga rek am yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen kii daal am yeneen réglage yu feeñ ci làmb ji quoi. muy yan. suñu mbër am ay gàllankoor lu ko gàllankoor. waaw ah. am ay gàllankoor ay nitam nekkoon fi tamit pour dindi loolu ab xam nga am na loo xamante ne nii mooy loolu. Hmm. du waxu média quoi. ci loolu lañ nekkoon pour mu mën a dem bëri ji. kon su ma la déggee dañ leen jàpp si mystique nga ma bëgg wax. <laughs> loolu nga bëgg a wax loolu de ma la déggee man dégg da su ma la da leen jàpp ci mystique. yéen kay rek da leen jàpp kon moo tax ngeen am ay gàllankoor. loolu de yaa ko wax man dégg naa da ngeen a paan dégg naa. la non paanuñu paanuñu. ñu ci kër gi lañ tardé. ci dernier réglage bi lañ nekkoon di ko réglé loolu moo waral ñu tardé. mais mujj ngeen ko réglé ba mu sotti ngeen ñëw wala da da nekkati na jonn rek. waaw réglé nañ ko réglé nañ ko rek ba jàpp ni réglé wu na rek après ñu dem. yow avant ngeen dem amoon ya amoon nga yaakaar na yéen di ngeen am ndam. waaw. tardé bi joxu la benn signe. non non joxuma benn signe barke maam Serafal xam nga làmb nag. day dem ba au dernier moment mu wëlbatiku ko waaw walbatiku de bari na ci moom. waaw. petit wëlbatiku de bari na ci kon làmb ji dafa wëlbatiku su ma la làmb ji mooy loolu. làmb ji li ci laxasu lépp kenn mënu ko wax dañuy ñaanal jën kay ren ndam li jikko rek. waaw waaw. mais jàppale gi yi ma dégg ngeen koy jooytu. Thiès bari ay autorité ay yaxoo ba jatara mi ngi fi Idrissa Seck Talla Sylla Habib Niang euh, Goro Thiès euh, Pape Doumbia kenn du moom loolu lan la te mu bari autorité kenn jàppale leen lu tax loolu. non xaay man da ñun xam nga li ma lay expliqué gars yi chaque jour ni ñuy déggee wax ak niñ koy tontoo rek du doon benn ñun Thiès gi ñu dëkk yaa ngi may dégg ñun Thiès gi ñu dëkk ñi ñu war a jàppale ñu ngi ñuy jàppale ku ci mel ni Mouhamed Ndiaye Momar Ba Alaaji Ousseynou Diouf ah Habib mm-hmm. Niang waaw waaw Lamine Diallo Omar Ndiouk gars yi a jàpp yëpp jàpp nañ ci xaj na nag keroog émission bi amoon confrontation. waaw Sanex dafa duggoon. Sanex waaw waaw xam nga li ma lay expliqué. di wax ni xam nga li ma mhm. bi war na gën a mën a sérieux comme kan ñuy jàppe mhm. mais gars yi la Sanex doon waxee. yaa ngi dégg ndax xam nga jàppale mbër dafa xaw a metti quoi. Mhm. mbër doo bàyyi ba jour si wala nga bàyyi bañ ne combat bi ay cinq jours des li nga koy jàppale nga door a ñëw. ndax làmb avant la. waaw damay lancer appel ci autorité yi rek pour ñu xam ni làmb bis boo signé contrat bi fa la jàppare yi war a démarrer quoi. mais mais les jours yi mooy loolu. Siré Dia borom njariñ li du bari daal. Mhm. Siré Dia mi ngi ciy jàpp. Siré Dia da ciy jàpp da ciy jàpp bu baax. Mhm. léegi nag gis seetaan nga anti dégg nga li mu wax nee na yow ragal nga avance bi traîné na a bi Vox Arena bëggoon nañ ko man xam naa fa mu tage. Mhm. sa diggante ak anti senegal bëgg nañ ko de. waaw xam nga fa mu tage ba pare ngay ñëw fii naan maa sa diggante ak anti ak yooyu. Ah, tag la xam nga fi làmb ci Ah, kon kay loolu man li ma ci wax bariwul. non mais defal ndànk laa mujj ñaari tag-tag la. xam nga def nañ fi émission nga woo ko. waaw muy wax bay saaga ci émission bi. moom kay non si da laa xiifoon rek loolu la wax. affaire mbër la boo xiifee mbër mi kay bu ñu la seetee da war a jël avance bi pour man. non moom nee na di saaga mbër mi à distance te bu ñu la yóbbulee avance bi nga bañ. daanaan la de la. loolu ragal weesuwul loolu. non du ragal fa fa mu dëkk ragal mosu faa juddoo. kooku bëgguma sax di développé ci moom xayma Seck. lu tax. ndax mbër moom xam nga rek boo xawee yaradiku moom mooy loolu. non non kooku du bëgg di sawar ci say bagage quoi. moom te moom looloo ko dal. ah yaruwul. non yaruwul dafa réew ba dof. moom anti. Mm-hmm. mi ngi lay dégg de damay bañ mu fekk la fii Madina Fall fii de. déggoo la anti bu nu bëkkante woon town barke alxuraanu karim ma duma ko. dama koy duma bala ñoo bëre. mais moom wax na ma loolu. yow li nga ma wax ni moom loolu la ma wax. bu ñu bëggante woon dama koy duma. mën ngaa duma anti yow mi duma yu mitti laa koy duma. lu tax bi leen boolee pour bëgg ngeen bëre nga nga bañ. kan moo bañ. ah yow waatuma la yow yow la nga ne bëriwu ma ak moom. waaye bàyyi ma waaye. yow fan yii wumal nga ne bëriwu ma ak moom. non parce que dafa. Assane Ndiaye bëgg na ko woo nan la ñu nga ne bëggu bëriwoo ak moom. xam nga lan moo tax li la wax gis nga mbër da ngay yaru. mën nañ waxante lu ne mais saaga warul jib quoi. loolu affaire mbër la rek. non non mais booy saaga sax nga bàyyi bañ dem ci géew bi ku ne xam na ni géew bi lu nekk fay am mais émission en direct ngay def affaire de réewande di bandi bandilu te yow bu ma la tàncoon barke alxuraanu karim doo wax yow mën ngaa tànc ant yow. billaay wallaay bu ñu bëkkante woon bu ŋaaŋee ma wàcce ko. barke alxuraanu karim. waaye damay moroomu anti. waaw mais lu tax bi ñu ko bëggee nii nii. yow xam nga ne man ak anti sax bokkuñu bugguma di développé ci moom. yow xam nga ne bokkuñu ngeen. yaa may posé question yooyu mais bokkuñu. non yéen ñaar adversaire taay ngeen lamb bu neex la yéen ñaar. bokkuñ ci dara bokkuñ ci dara anti ñi ma bëreel xalaatu la bëreeg ñoom xalaatu ko sax ah moom nee na ma nee na ma instant yi bu bëreeg yow comme que amoo jàppale bu la daanee da amoo jàppale loolu mu wax mbaru Cees nga comme sa mag moo amul jàppale julli ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur na keroog émission ba nam deme rek saa dugg di waxee ak ñun ñu ngi sant yàlla bu baax a baax saa nag dafa def ko war dafa dugg di waxee ak yéeneem quoi mm-hmm. di wane ne jàppale bi waroon naa man a weesu fii mais ñu ngi ñuy jàppale waaw kon daal loolu ñaan fas lu mu daw daw du tee ñu làbbali daal waaw làbbali fas waaw taxul fas raw kon noonu la demee ñëwaatal ma ci yaa kii Pape Thiam su ma juumul tamit si nan la ay laay avance bari yi ngay delloo pour lan la yow xam nga da xam lépp ba pare ñëw fii di ma sonn daa am ñuy seetaan te xamuñu waaw ñiy seetaan sax xamuñu yow ñu ngi may limal ñëpp xam nga li ma lay expliqué yaa Pape Thiam moom loolu moom ñu xam nga ne suñ combat doon nañ ko dox woo nga ko fii téléphone mu nekk foofu di ratatat daw na laaxu moom moo daaxoon foofu waaw loolu dañ neexoon mais daa profité dem jëli combat bële. non da ñoom ba tey ñooy teggi rek mais man teggiwu ma. dafa amul kum bëreel dafa amul kum bëreel moo tax man maa ngi fi. te yow yi ah. bëgg nañ ko kay. dem teggi jëli kóol bu sax. nga bu jógee ci kóol yéen ñaar ba tey weesoogul de. waaw ay génération lañ de. waaw mën ngeen a bëri. Hmm. bëggoon déggu naa yow kalaaf gin bu yoof Pape Thiam anti loolu lu ko yaax ba tey. man daal en tout cas yooyu noonu benn yàquwut ci man. yow daal ñàkk ngay bañ alors que ni kay ñoom ñoo daw. Hmm. Hmm, ñoom ñoo daw. su ma jum wiiri quoi seeti beneen yoon wiiri wiiri mais wiiri wiiri lu ci olof Njaay wax jaari ndaari kon yàgg-yàgg ñoom di ngeen jaari ndaari wala ma bàyyi leen fi dox sama dox noo leen fii bàyyee su ma bëree waatee lu lul waay yow Moussa Balla Gaye nee nañ jox nañ ko sa avance nga ma doon ko nag mais Moussa Balla Gaye kenn musuma ko proposé de ah moom da nee na ma ah, laay goote la la ma xaarim saam wax mais mu laay goote loolu ak siwul ci man de kon gars yi wax noonu rek gars yi dañuy wax rek Kaay Fante Seck da nga leen di dékk micro yi lu ne ñu koy wax buñ bëggee bëreeg mbër mi dañuy taxaw direct lay fan direct ni diw ñëwul ñu bëre mais buñ toog naan seeti nañ ko mu bañ ak affaire yooyu noonu yooyu amul sens. mbër